du Sénégal na ngeen def alors a trop d'informations donc dama leen di defal journal patriotique euh, bii qui nax euh, ci gouvernement bi laa leen di wax beneen bi nax ma boole leen yeneen information yu hmm? alors euh, bu ma gouvernement président de la république a commencé président de la république fallait que ci palais présidentiel recevoir na élève yi nga xamante ne ñoo école bi tudd Kër Maam Diarra jógee feulé ci Pikine Aïnoumady 3 donc ñom dañu ñëwone pour visiter palais de la République président malgré le fait que mu ngi amone ay dossiers yu bari yu mu nekkoon di gérer genn na quand même euh, waxtaan ak xalé touti euh ba pare euh, surtout daal di len fàttali né il faut que ñu euh, sam li nga xamné modi suñu environnement parce que c'est très très important mais surtout ñuy commencer di saxal ay garab. Euh, buñ leen saxalee ba pare na leen di toppatoo di leen di dundal di leen di arrosé et tout voilà président la république profité na tamit ci occasion bi euh, wax ñi nga xamante ne ñoo di xale yi ne moom dafa jël engagement ne dina protéger li nga xamante moy intérêt wu euh, sénégalais mais surtout ñom sen génération ak génération yenen yenen yi nga xamante ne ne ñooy ñëw euh, loolu motax nak mu ne len euh, man ni ma nax gérer suñu réew mi dafa nar a nekk loo xamante ne ne lu leer nàññ la lo xamante ne tamit ñeppay tolo euh surtout na ni manara nar li nga xamné ne richesse yi nga xamné ne ñoo joggé ci suñu souf ci donc euh, président nak bala xalé yee yegg si moom recevoir na tey si suba madame Ouzra Zeya muy sous-secrétaire d'État à la sécurité civile démocratie ak droit de l'homme fële ci États-Unis mom nak euh, Ouzra Zeya wax na président de la République ne USA euh, manam États-Unis d'Amérique ñom dañoo bëgg gëna gën a li nga xamné ne moo liggéey bi ñuy liggéey ak Sénégal mais tamit ci walu yu bëri lañ ko bëgg def mom profitoo na ci tamit pour daal di rafetlu euh, dëgër bi nga xamantene démocratie sénégalaise dëgër nako ko euh, président de la république na euh, demb gisoon ngeen image yi mu doon waxale xar président demb dafa demoon visiter ji fi nga xam modi village artisanal bu Soumbédioune mu àndoon ak ministre du tourisme et de l'artisanat bu mu paree dem na tamit fi nga xam ne moo di daral bi tudd Galoya président nag profité na si pour gën a saafonte ak ñi nga xamante ne ñooy citoyens yi euh, waxtaan ak ñoom et tout mais surtout euh, wax ne ne moom dafa bëgg jàppale bu baax li nga xamante ne moo di artisanat euh, gën a tamit promouvoir li nga xam ne moo di made in Sénégal produit ak article yi nga xamante ne dañu koy defar bir Sénégal euh, muy nek nak lo xamante ne dañu ko wara gëna euh, gën euh, mettre en valeur président de la république def na benn poste ci comptam di wax ne ne tabaski léegi mu jot motax profito na ci am mbégte lool dem village artisanal bu Soumbédioune visité tamit fi nga xamante modi bergerie Galoya dem xoli xar dama fier ci mën-mënu sénégalais yi Euh, mën-mënu artisan sénégalais yi ndax am nañu talent bu baax a baax a baax maa ngi gën a encourager sénégalais yi ñu consommer local ndax loolu moo mën a développer li nga xam ne moo di suñu réew. leneen li moo di ambassadeur yeneeni réew doxantu nañu bu baax a baax fi nga xamantene ne ni moo di ci primature monsieur le premier ministre Ousmane Sonko recevoir na en audience ambassadeur Russie bu Qatar bu Palestine ak bu Arabie Saoudite ñu waxtaanee bu baax li nga xamantene ne mooy nu ñuy renforcer ak nu ñuy gën euh, diversifier relation de partenariat yi am diggante Sénégal ak yooyu réew loolu weesoo na ki nga xamante ne moo di ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères di madame Yacine Fall euh, xam ngeen dafa demoon fi nga xamante ne ne Corée du Sud ci benn sommet boo xam ne ne euh, Corée daf ko doon amal ak réewu Afrique yi euh, foog naa ne sama collaboratrice bi di Mamita la Patriote defaloon na leen ci tout ay jàngat

bu nek euh, souveraineté euh, mu ne CORED dafa nar jappalé Afrique ci walum technologie walum euh, li nga xamné modi industrialisation sécurité alimentaire développer système santé bi tabax ay infrastructure yo xamante né dina mëna dimbali Afrique bu baaxa baax qui nous nga xamante Sénégal euh, Corée euh, dina liggéey ak Sénégal ci wàllum agriculture bi surtout mbirum euh, mécanisation agricole transport maritime et fluvial éducation ak santé Corée Sénégal dina dugal lu ci 10 milliards de dollars en Afrique mu nekk nax euh, plus de 500 milliards de francs CFA dina dugal tamit 14 euh, milliards yoo xamante ne ne euh, moom ay coréens lañ koy jox pour ñu ñëw def ay investissement si biir Afrique donc 14 milliards mooy maanaam 700 milliards voilà de francs CFA. leneen li nag mooy docteur Alun Badara di ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire moom nax jot naa dalal ki nga xamante ne moo Turquie di madame. Madame Nour Sagman euh, ñoom nag waxtaanee nañu euh, nan la ñuy renforcer euh, nan la ñuy gën a defar li nga xamante ne ne moo di coopération Turquie Sénégal ak nan la ñuy gën a organiser li nga xamante ne ne mooy nu ñuy former ak nu ñuy gunge ñi nga xamante ne ñooy. acteurs est économie sociale et solidaire donc Turquie m'a proposé un projet d'appui pour euh, xamante ne ne dina ci liggéey ak entreprise yu ndaw euh, ministère dina ak pour euh, nan le pour que euh, ay sénégalais mën cee bénéficier moom ministre docteur Alioune Badara euh, xam ngeen wéx bi passé dafa demone fi nga xamné ne Égypte bi nak mom euh, mo dalal euh, ki nga xamante ne ambassadeur bu Égypte tamit euh, waxtaanee nañu euh, liggéey bi nga xamante wax nañ ko amal ñu nak Égypte ndax euh, mom néna na Égypte da fay a nek première puissance économique africaine euh, di nek tamit leader mondial ci mbirum aquaculture donc ñun dañuy soxla sen expertise euh, ñu gën ñoo won li nga xamantene ne modi yoon bi lolu tax na nañ am ay collaboration yo xamantene dinañ ko def ak ñom ci wër yi di ñew ak ci at yi di ñew leneen li moy euh, ministre de la santé et de l'action sociale docteur Ibrahim Sy mom demoon na participer ci dialogue bi nga xamantene ministère santé yu bëri ci ay réew yu bëri dañ ko doon amal fele ci Suisse ci Genève euh, ñoom nag ñu fa doon waxtaanee nan la ñuy développer santé maternelle néonatale et infantile maanaam euh, jigéenu wóorul yi ak jigéenu wasin bees yi ak bébé yi ak euh, xale yu ndaw a ndaw tout tànk yi nan la ñuy gën a fexe ba seen wargu yaram ñu mën koo sàmm mën leen cee accompagner donc ministre bi wax na ne moom waxtaanee na foofu surtout nan la Sénégal di gën a mën a taxawee ci wàll boobu ak aussi ne Sénégal mu ci góorgóorlu ci wàllum nu ñuy gën Euh, former agent de santé communautaire ak nan lañuy def ba numériser li nga xamné modi données yi ci établissement de santé yi ak gëna yaata li nga xamné moy service yu mëna a compléter wërgu yaramu euh, jigéenu yoy nonu ak euh, bébé xalé yoy nonu par exemple planification familiale ministère infrastructure transport terrestre et aérien mom génne na benn genre rapport pour wax ñu ci birum pèlerinage bi manam ñi doon aji mak wax na 12 300 personnes 29 euh, vols ont aussi ñun ñëpp ci 29 avions lañ leen dugal euh, boo tableau bi di nga gis né retard mais Air Sénégal am na retard euh, le 31 mai le 1er juin le 2 juin ak le 3 juin ay retard nak yu xawa euh, am solo 14 h 30 h 48 heures ak 27 heures de retard Air Sénégal war nañ ko xoolaat bu ministre urbanisme ak collectivité territoriale yi civil manam agence nationale état civil ak union européenne dañoo financé euh, bu pour ñu euh, civil yi Sénégal yépp 1200 ordinateurs 1000 imprimantes 1200 onduleurs serveurs ak équipement valeur 1 milliard 200 millions ngir euh, liggéey bi voilà まあいいのは。